alors lundi euh, dañuy démarrer euh, dialogue dialogue boo xam ne euh, ça divise les acteurs politiques il y a seize candidats en tout cas xaw ma ndax dinañu changer avis nee nañu du ñu dem ci dialogue boobule am na organisation société civile yu nekk C25 bokk kook ay acteurs politiques nee nañu dinañu dem d'ailleurs c'est des organisations de la société civile qui se radicalisent qui se bloquent qui se braque alors que dañoo war a jouer rôle tampon dinañ ci dinañu ci ñëw euh, de l'autre côté am na candidat yu bari ay recalés ay acteurs politiques euh, ñu bokk euh, ci yenn front politique yi nee nañu dinañu dem candidat bu mel ni Amadou Ba Mohamed Boun Abdallah Dionne ak ki nga xam moom mooy Idrissa Seck nee nañu dinañu dem ci dialogue boobule Abdou Mbaye woon na acteurs politiques yi ñu toog waxtaan ndax moom mooy la seule issue alors est-ce que dialogue bi à partir de ce dialogue la est-ce que mën nañu am une solution euh, une solution à toutes les formes de crise yi nga xam ne moom la report bi généré bon euh, li ma wax ci cours bi ma def école de commerce de Lyon moom laay waxaat fi le dialogue est le moindre mal pour arriver à à bout de la crise maanaam dialogue bi mooy li nga xam ni mooy li nga xam ni bu lépp bone moo ci tane pour mën a régler problème bi parce que ñaara mën a am dialogue wala xeex jaloog wala tas réew mi dialogue wala wala guerre civile dialogue wala coup de coup d'état yooyu yëpp nag man dialogue ma ko gënal c'est la vérité xam nga bu ndox tuuroo euh, boo bëggul an baax dangay ngay rootiwaat rootiwaat mooy lan ne ñëpp toog waxtaane réew mi ci deux jours yooyu ñu jël ay décision décision yooyu Macky Sall tënk ko jox ko conseil conseil ñu doxal ko <coughs> parce que beneen solution mënoon naa am Macky Sall mënoon naa sa sans pour autant dialogue ak kenn mais comme mu réew mi te mi ngi dem mais faaw mu pencoo ko ñi nga xam ni ñoo fi ne su le champ politique mais et au de quoi ñu ni candidat yi rek ñoo war a dialoguer candidat boo xam ni cinquante trois mille parrainage nga am ban légitimité nga ëpp BDS mi am cinq cent mille électeurs pour dialoguer ci réew mi. légitimité euh, conseil constitutionnel nga leen ëppale. non non non je suis désolé conseil constitutionnel du falul kenn. non mais conseil constitutionnel. nekk candidat non dafa naa non ah, ah, non non non non may mun a. valider candidat valider candidature mu kenn falu la. candidat nga kenn falu la. yaa ngi dégg bokkul ak parti boo xam ni dafa am cinq cent mille électeurs am vingt sept députés assemblée nationale ban légitimité yow candidat bi nga xam ni quarante trois mille parrainage nga am xaw ma nga ëpp légitimité pour que PDS pour wax ci problème mu réew mi fan foo ko teg non pas pour wax ci problème mu réew mi mais am na ñoo xam ne dañoo jàpp ils se disent dialoguer pour quoi faire euh, conseil mais dialoguer pour quoi faire voilà xaaral ma répondre ci question boobu ah, dialoguer conseil constitutionnel joxe na hmm. la liste des candidats le problème Rose Wardini a été euh, li des mooy président de la République defaat décret convoquer le corps électoral defaat décret fixer une nouvelle date des élections ñoom jàpp nañu ne bu amee ñenn ñu président war a waxal mooy ñi nga xam ne ñooñu la conseil constitutionnel jàpp ne ñoom ñoo yelloo bokk ci élection bi donc jàpp nañ ne lan la ñuy dialogueeti ah, da nga ni le problème Rose Wardini a été réglé loolu nga wax mais am na yeneen problème yu réglé wul lu tax ñu war a réglé problème Rose Wardini bàyyi fi yeneen problème yi jàmbur te Rose Wardini moom war woon nekk candidat ñu dugal ko ci am ñu war a nekk candidat ñu génne leen ci mais mu na loolu mooy affaire bi aussi. dialogue pour lan xam xam nga ni non mosuma d'accord ci report man ñi gën a contre report élection présidentielle ci laa bokk. wax naa ko bind naa ko liir nga interview yi ma def fii yëpp ci journal tubaab yi même bi tubaab yi ne ma dialogue dama ne la bala ngay dialogué du léegi lañ dañoo war a jaloge avant ñuy reporter élection man loolu laa gëm loolu laa wax mais dama ne la fi ñu toll nii nekkatuñu d'accord ci report wala contre ci report dañoo nekk ci li ñuy wax naan boo dekku bala ngay lakkale lu ñuy def ba sauver réew mi lu ñuy def ba jàmm dellusiwaat ci réew mi nu ñuy def ba dafay élection yoo xam ni buñ ca jógee ca dimanche ba lundi bi ñëpp xëy suba liggéey comme ni ñu daan defee Sénégal loolu pour mu am il faut wax am il faut dialogue am foofu la yëf yi toll bu Macky Sall reporté wul yi duñ nekk xam nga xam nga li gën a bon mooy nit ki foo da ngay raisonner ci réalité bi booy xalaat da la ngay wax da ngay wax ci li xew doo wax ci li waroon a xew li waroon a xew xewul li waroon a xew bu xewoon tey tey nii ñi ngi ñi ngi nekk di compiler résultat yi pour wax ñan ñooy dem deuxième tour bu fekkoon ni li waroon xew moo xewoon li waroon xew nag xewul comme li waroon xew xewul ci li xew la ñuy basé pour mën a raisonner. mais yéen c'est ça qu'on appelle le non attends c'est le raisonnement in concreto c'est pas la même chose que le raisonnement in abstracto ñi nga xam ne ñoom ña nga ca élection vingt cinq février ba léegi ñooñu mënuñoo am solution ci problème bi. pour nga am solution ci problème bi il faut nga xool situation bi actuelle ni mu bindoo ak nu ñu mën a def ba réew mi génn ci man foofu laa taxaw léegi nag defal ndànk may mun a defal ndànk rek mu wax la ñett mën a am dialogue trouver solution def élection bu mucc ayib jàmm am ci réew mi walla xeex tojante bopp tuurante dale rayante kenn xamul fu mu yem wala coup d'état armée jël pouvoir bi indil ñu dugañ ci cycle boo xam ni kenn xamul fuñ fuñ jëm ak moom man nag solution yooyu yëpp yëpp yëpp man pour man bi ci gën a yëpp a bon mais bi ci gën a mën a bo mooy bon bi ci tane mooy ñu dialogué génn ci impasse bi ñu nekk. loolu fi